wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain euh, bokki Sénégal salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci kàddu sëriñ bi di xalif généralu tariqa al qadiriya di cheikh al bekaay ibnu cheikh al bekaay ak njaboot gi nga xam ni jaboote nañ ko jaboote na ko moom ñu topp ci gannaawam mi ngi yëkki kàddoom di massawu d'abord réew mi ci li nga xam ni xew na ak coono yi nga xam ni juddu na ci di ñaan itam suñu boroom subhanahu wa ñi nga xam ni yàlla nattoo la neen feebar bi muy corona virus bi yàlla yàlla fëgg seen bopp te yamale ko fi fi mu jot a nekk itam ci àdduna bi yépp yal na yàlla dindi loolu delloosiwaat dal gi ak jàmm ji sëriñ bi kon mi ngi ndokkeel njiitu réew mi ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni taxaw na ko ak responsabilité bi nga xam ni jël na ko xam nit ni tey mooy bàyyi nation bi mu ñëw itam méngoog diine méngoo ci ak sëriñ bi ndax itam bu ngeen bàyyee xel tuuti ca gannaaw ci semaine yi passé man mii nga xam ni maa yore kàddoo yëkkati woon naa kàddu ci mbir mi nga xam ne am na muy coronavirus bi waxoon ni sëriñ bi ak njaboot gi lépp loo xam ni ñi jiite réew mi gis nañu ni loolu mooy jëmale réew mi kanam di dimbale askan wi sëriñ bi ànd na ci xanaa dañuy baamtuwaat rek waaye loolu waxoon nañ ko ba noppi kon ñu yëgal bokk yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi te naaloon ay évétement diine yoo xam ni ñu ngi ko waroon a def ni kat sëriñ bi mu ngi leen di ñaan di leen digal ni loolu lépp nañ ko teg ci suuf alhamdulilahi rabbil alamin kamataan muy njaasaan saalum waroon na am ci samedi bii di ñëw fekk na taawam di doomam itam di Muhammad mi nga xam ne moo jiite njaboot gi bi mu déggee loolu démb jokkoo ci ñi mu ci war a jokkoo joxe na ndigal ni annulé nañ ko sookoon mi nga xam ne aussi doomam a fa nekk di góor gi shérif mu njaboot gu baax ak ndeer naar mi nga xam ni ñoom itam naaloon nañu lu mel noonu ak doomam ak rakkam ji nga xam ni tey moo nekk fële ca lat mengal di cheikh di doomu cheikh Sidi Yaxya ñoom ñépp itam ak bokki taalibe yi nga xam ni amoon nañu ay bés lu mel ni Ndofane ak feneen ak feneen lépp teg nañ ko ci suuf sëriñ bi nee na nañu teg lépp ci suuf ba keroog ñu gis ni war naa dellu si su boobaa ñu delloo si waat ko insha allahu taala bi ci des ñu di ko ci teg mooy li yonent bi tontu woon benn jigéen ci lu mel nii xeex bi dafa tàngoon ñu bari di génn àddina bàyyi njaboot soxna si jaaxle ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko yaa rasulallahi mate tantahil xarb moo yonent bi xeex bi kañ lay jeex yonent bi tontu ko ne ko idam tala al wiaau bi xasbuna allahu wa niamal wakil bés boo xamee ni biir yi ak dënn yi ak xol yi ak xel yi fees na dell ak baatu xasbunallahu wa ni'mal wakiil su boobaa xeex bi dana jeex kon xeex bi nga xam ne tey moo am suñu diggante ak jàngoro ji nga xam ne lëmb àdduna yonant bi joxe na ko te kenn ku ci nekk yaa ngi moom sa kër kon nag sëriñ bi mi ngi ñaan senegal gépp kenn ku ci ne mu saxoo xasbunallahu wa ni'mal wakiil lim boo ci mën a wax baax na waaye na la wóor ni la ca yàlla teg mooy am mooy képp koo xam ne daf ko wax ci tiitaange ak ragal ak jaaxle waxuma sax ni du la dal waaye yàlla daf lay dolliwaat xiiwal fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadl ñooñu kon euh, sëriñ bi mu ngi ci bàyyiloo njaboot gi xel di ko bàyyiloo waa réew mi xel ñuy ñaan yàlla nag euh, lii nga xam ni lëmbe na àdduna bi te yàlla indi ko fi war na am lu mu def ci ñun mooy delluwaat ci yàlla tuub nag dafa uute ak baatu astaxfirullah tuub moo ëpp solo astaxfirullah fi muy jariñe mooy da tuub ba noppi nan ngay tuube ni ngay tuube mooy li yàlla tere te nga nekkoon ci da nga ciy buddeeku muy benn danga koy bàyyi bi ci des mooy <clears throat> dangay fas yéene ni dootoo ci dellu muy ñaar ñetteel bi mooy li nga jot a faagaagal sa diggante ak say sa borom ci ay farata ci ay jaamu yàlla fay ko ñeenteel bi mooy àq boo yoral sa moroomu doomu aadama demal nga delloo ko ko moo xam àqu wax la nga dem balu ko àq moo xam àqu matériel la boo jël ci moom demal nga balu ko àq jéggulu ko loolu su amee nag baatu astaghfirullah dana jël taxawaayu astaghfirullah waaye su amul baatu astaxfirullah dina layoog ka koy wax dana ko layoog ka koy wax ëllëg dana ko ne lu tax nga wax ma te fi ma waroon tegu ba nga wax ma tegoo teguloo ma fa fi ma waroon tegu nag mooy baat yi ma wax sànq mooy ñeent yi nga xam ne indi naa ko buddeeku ci bàkkaar bi fas yéene lu doo ci dellu li dox sa diggante ak sa borom te nga sàgganoon ci nga fay ko li dox sa diggante ak doomu aadama yi nga jéggalu leen su ko defee baatu astaxfirullah soog a ñëw loolu rek lañ doon wax ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp di jë gërëm it ñi nga xam ne tey ñoo jël si wax ji di xale yu baax te Babacar Sow nekk Sud FM ak caméraman bi nga xam ni moo jóge fële ci TFM te Cheikh Anta yabal ko fi ak suñu mbokk mu baax mi nga xam ni mooy euh, mbay sàmb di Thiès 24 salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.